أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم عباد الله اعلموا جيداً أن الأمة اليوم لا تعيش أزمة اقتصادية ولا أزمة جهد ولا أزمة دين ولا أزمة بطالة ولا أزمة تقاتل ولا أزمة تفكك أكثر مما تعيش أز- أزمة دمير بقيت يلا ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla doole xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy su ngor deewee su nit amatul conscience jullit su ñàkkee ngor loolu mooy unwaanul xutba yéen mbokk yi ci yàlla xam ngeen ne tey xeet wi ci réew mi nu nekk suñu problème raw na problème économique raw na problème l'ignorance ñàkk a jàng raw na problème diini raw na problème ñàkk liggéey raw na problème xeex ak reyante gi ñu nekkee problème bi gën a rëy tey ci suñu société bii nuy dund mooy ñàkk ngor ñàkk xel ñàkk conscience xeet wi di xeetu jullit réew mi di Sénégal problème bi gën a rëy bi ñu fi am mooy ñàkk ngor ñàkk conscience bu wér ndax ni ñu leen dévier ci seen lépp déviation ci diine yaakaar na ñun ci diine fekk dañuy lambatu déviation ci wàllu politique xeet bi foo toll rek di nga gis dañ leen a dévier yéen samay mbokk jullit déviation boo xam ne dem nañ ba amatuñu conscience ci seen bopp gëmatuñu seen bopp su ab tubaab pistoolee wala ab yëgu fële ci réew yi nasaraan ya fii ngay dégg ku koy ndokkeel naan ko yarhamukallah bu dee ca sow tamit kazalik te xam ngeen ne xeet rawatina ab jullit su fekkee ne amatuñu ngor amatuñu conscience ñooñu ay rabu àll lañu waaye nekkatuñu ay nit ayyuha al ahbab is kayfa yastaqimu zill wal uhudu ahwaj garab gi naka la ker gi di dëngee fekk ker gaa ngi garab gaa ngi jub mënul nekk saa yoo gisee garab bu dëng saa yoo gisee ker bu dëng garab gaa dëng su garab dëngee rek ker dëng léeg-léeg nga gis ñu bind ci yenn réew yi benn waaye day nettali mu ne yuxkaa annahu kutiba fi turuqaat baadul buldaan benn waaye nee na tukki naa ci ay réew ma gis ñu bind fa ci ay tableau ci mbedd bi ci tali bi mu ne ñu daal di bind anta lasta wahdak kulluna naraak dañoo bind ci tableau mbedd yi ah yow mii di dox ci kaw tali bi du yow kenn yaa fi nekk de li ngay wéet wéet wéet wéet yëgal ne nu ngi lay gis soo liiree tableau bi yow mi doxantu yow mi génn sa kër di liggéey wala ngay doxi sa soxla soo liiree tableau boobu anta lasta wahdak kulluna naraak du yow kenn yaa nekk ci mbedd mi donte ne dangaa wéet yow kenn la nun ñëpp ñu lay gis sa conscience day jël si waat ci yow soo yoroon musuwaar doo ko sànni ci mbedd soo doon dawal oto doo burle foofu soo gisoon alalu jàmbur doo ko laal lu tax kulluna naraak ah yëgal na nu ngi lay gis sa xel commencé dem ci caméra surveillance ah comme lire naa ci tableau bi tey nu ngi may gis naa def attention wa hiya risala ayuha al ahbab waadiha li iqaasi jamir loolu nag tableau boobu benn message lay lancé benn kàddu la lay lancé yow mi ko lire mooy lan pour sa conscience na na nekk ak yow nekk ci mbedd mi rek taxul nga def lu la neex am doole taxul nga def lu la neex am kattan taxul nga def lu la neex nga wéet taxul nga def li la neex kullu naa naraa ko ñun ñëpp ñu ngi lay gis defal attention loolu la ñuy bind ci tableau yi ci yenn réew yu avancé yi nun nag wa iza arafta annanaa naraak yow mi dox ci mbedd mi soo amee conscience ne ñëpp a ngi lay gis kon fala tuxaalif fi charia yoon wi kon dafa am benn loi bu fiy dox kon yow amoo droit xëtt loi boobu bul sànni mbali ci trottoir yi bul xëtt foo bi ndax mu ngi lay gis waaw allahu akbar su fekkee yow loolu nga gis rek wala caméra surveillance bi nga gis nga normal yàlla mi ne la alam taalam bi anna allaha yara yàlla mi ne la maa ngi lay gis maa yakunu min najwa amul foo toog di déeyoo lu dul yàlla mi ngi lay gis alam tara anna allaha yaalamu maa fi samaawaati wa maa fi l ard yow xanaa yëgoo ne yàlla jalla jalaalu wa sa kamaalu dara réeru ko ci asamaan dara réeru ko ci kaw suuf lépp moom yàlla xam na ko su fekkee kee dafa lire ci tableau bi rek normal yow mi nga xam ne yaa ngeeg borom boo xam ne yaalamu maa fi samaawaati wa maa fi l-ard nee na la maa yakunu min najwa salaasa illaa wa huwa raabi'uhum ñetti nit suñuy dox yàlla nee na ñeenteel naa leen ñeent suñuy dox yàlla nee na juróomeel naa leen juróom suñuy dox yàlla nee na juróom-benneel naa leen kon soo nekkee kenn nekk na ku la ñaareel soo nekkee ñaar nekk na ku leen ñetteel wa huwa ma'akum aynamaa kaanu mu ne fu ngeen nekk maa ngi ànd ak yéen te ëllëg yawmal qiyaam li ngeen doon def yëpp dinaa leen ko wax. ñu ne ko lu tax mu ne wa huwa bi kulli shay'in alim lépp laa xam dara na buru ci man laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama du asamaan du kaw suuf lépp ëllëg naa la ko nettal waaw kon allahu akbar su fekkee kii dafa lire tableau bi rek normal yow mi nga xam ne yaa ngi guur bu mel nii kon yow noo war a mel mais ma asaf ñun tey ay loi lañ gën a respecté ak yàlla waa ji day ñëw ci place bi normal pourquoi caméra surveillance bi mu may xool même ci biir jàkka ji sax y a des caméras surveillance ah kon ne bu ma laal dara ndax caméra baa ngi nii kon ne bu ma def lii kon bu ma def nangam parce que caméra baa ngi nii caméra lañ gën a ragal ak yàlla caméra surveillance lañ gën a ragal ak yàlla. waa ji day dugg ci salle bi toog toog normal pourquoi y a des caméras surveillance waa ji day dawal oto day normal parce que gendarme yi wala policier yi ñu ngi caméra surveillance waa ji fu mu dem day normal parce que nit ñaa ngi fi yàlla nag. moo tax yonente bi alayhi salaam ba mu yar sahaaba yi bokk na ci yar bu mu leen yar ba mu yar abazar mu ne ko yaa abazar ittaqillaha haysu ma kunt ragalal yàlla foo mën a nekk moo tax abdullah ibnu omar ba mu génnee moom ak sahaaba yi ñu génn xuruj ñu xiif ñu gis benn sàmmkat ñu koy ñu ne nañ ko seetlu abdullah ibnu omar ñëw di sàmmkat bi ne ko ñun de dañoo génnoon dañoo xiif dañoo bëgg sa xar yi nga jaay ñu ci benn mu ne leen moom ma ko ñu ne ko soo delloo ci dëkk ba nga ne borom xar yi benn xar bi day till bi moo ko lekk sàmmkat bi ne Abdullah ibn Umar ayna Allah ana yàlla Allah ayna Allah la ilaha illa Allah baat boobu moo ñu manqué ayna Allah ayna Allah moo ñu manqué lépp ragal nañ ko ba ndes yàlla yastafuna min annaas wala yastaxfuna min allah dañuy nëbbatu nit ñi te duñu ragal yàlla duñu nëbbatu nit ñi yàlla fu mu nekk lu nu neex def xalaatuñu yàlla nit ñi moom dañ leen di nëbbatu yàlla mi nga xam ne mu ngi ànd ak ñun tout le temps yàlla moom bu bàyyi wuñu ko xel moo tax mbokk yi isa mata tamit saa yu conscience deewee saa yu nit amatul ngor saa yu nit amatul jom lu ko neex lay def comme maadaama yow ñu ngi lay gis isa arafta annaka naraak su fekkee yow xam nga ne nu ngi lay gis kon day alalu réew mi la dénk doo ko sànq doo ko yàq parce que ñu ngi lay gis kon alalu réew mi da nga koy teg fu normal waaye bu fekkee yàlla nga lay gis alalu réew mi jàngati la lu la neex defal sàccal alalu réew mi dénkaane ko fu la neex parce que yàllaa lay gis nit ñi gisuñu la su la nit ñi di gis nga normal su fekkee yàllaa ngi lay gis nga jalgati isa arafta annana naraak fa addi amalak ala fadli suwar su fekkee maa ngi taxaw ñu la xool liggéey bi ngay liggéey da nga koy liggéey normal su fekkee nekkuma fi nga jalgati su fekkee yàllaa ngi fi defal lu la neex su fekkee borom liggéey bi mi ngi fi ah attention borom liggéey baa ngi fi tey tey génnul normal leen ñëpp jub le patron est là ñëpp normal su demee ñu ne patron dem na yàlla moo fi nekk ñëpp jalgati ana sunu ana sunu ana sunu xel ana sunu conscience ana mu ana sunu ngor sunu diine sunu digganteeg sunu borom wa nahnu bi safhatina muslimin ñun maadaama ñun ay jullit lañ hal naxtaaju ila misli hadihi l qawl est ce que ñun war nañu soxla tableau yooyu ñuy bind ci mbedd mi wala caméra surveillance yi ndax soxla nañu su fekkee ñun ay jullit la laaw ndax soxla nañ caméra surveillance ndax soxla nañ ay tableau yu bind naan yow kenn nekkoo ci mbedd mi wéetoo ne nu ngi lay gis fekkee ne ñun ay jullit lañ allahu akbar yonent bi dafa yaroon sahaaba yi ba bu ñu moyee bu ñu wéetee mooy yàlla sax seen conscience du tranquille foog ñu ñëw ci yonent bi ne ko mooy nenu yàlla yéen a ngi fàttaliku almaxzumiya ndaw sa njaaloo woon ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko damaa njaaloo fexeel nga setal bàkkaar bi mu ne ko demal ba nga am doom juróom-ñeenti weer gisoo nit xamoo fu mu nekk juróom-ñeenti weer ndaw si ëmb dem ba am doom ñëw toog ci kanamu yonent bi ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla yi xamme nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko may ndaw si njaaloo woon ma ñëw ci yow nga ne ma demal ba nga am doom doom jaa ngi nii am naa doom démb ci guddi defal li yàlla wax ci man bëgguma dajeeg yàlla di yóbbaale bakkaar mu ne demal nga nàmpal ko ba mu fekk allahu akbar buntu yooyu yëpp borom xam-xam yi doon firi hadis bi dañu ne yonent bi daf ko doon ubbil ndaw si ndax bu demee amaana xelam dem ci tuub mu daw tuub ba ñu ñëwaat ndax kat àtte njaaloo mooy dañ koy rey te bu demee tuub yàlla mën na ko baal te mën nga nàmpal ko ba mu fer ndaw si jóg ak meram yëkkati doom ji yóbbu dem nàmpal ko ba mu fer mu ñëwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko yaa rasulallah yow yonent bi ndax xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko may ndaw si njaaloo woon nga ni ma demal ba nga am doom nga ñëw ma am doom ñëw nga ni ma demal nga nàmpal ko ba mu fer feral naa ko démb ci guddi moo ngi nii mën na lekk mburu xoolal jox naa ko su mburu dina lekkal boppam yow yonent bi defal li yàlla wax balaa may dajeeg yàlla di yóbbaale bakkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne sahaaba yi aqimu xabdallahi alayha def leen li yàlla wax ci moom ñu jël ndaw si sàng ko sagaram ay morso ñu jël ay xeer di ko dóor Xaalid ibnu Walid moo jël benn birig bu mag daal di koy dóor ci bopp bi bopp bi tas yonent bi daal di yuuxu Xaalid ne ko max yaa Xaalid laqad taaba tawbatan law xusimat ahlal madina wa asxaab max yaa Xaalid max defal ndànk yow Xaalid ndànk ndaw si tuub na tuub boo xam ne waa Madina yëpp buñ defoon bàkkaar tuub bi dina leen yóbbu aljanna ndànk kon doomu ndey allahu akbar yonent bi ñii la yoroon ñu am conscience bu sell bu set bu wér waaye nun tey dañ xool suñu bopp ndax dëgg nag li yaroon saxaaba yi ndax yar nañu tey la taxoon saxaaba yi baax ndax ñun baaxal nañ tey la saxaaba yi nekkoon ndax ñun nekk nañ ci tey loolu lañu war a xool ixwatal imaan ñun fekk tableau baa ngi fi caméra baa ngi fi gendarme baa ngi fi policier baa ngi fi yaa ngi normal benn mbokk buy julli si jumaa fii dafa yor oto nee na ma burle foo bi bi ma ñëw ba ji foo bi gisuma policier bi ma burle policier bi daal may siffler ne eh xanaa gisoo foo bi mu ne ko ah kay yow mii laa gisul woon gis naa foo bi de yow laa gisul woon loolu muy tekki mooy su ma la gisoon dinaa taxaw maadaama foo bi même moo fi nekk kon xaaral ma jalgati ndax lii mooy diine ndax lii mooy lislaam suñ la dénkee réew mi nga sànq suñ la falee poste nga fecc say mbokk fecc gis ngeen ministre yu bees yi ku nekk seen waa village fecc na sa waa kër fecc gis ngeen député yu bees yi ñëpp a doon fecc ku ñu fal jox na alal réew mi nga fecc xool leen taalibe yi ak sëriñ yi ni taalibe yi ni ni ñu dundal na taalibe yi ci yàlla xool leen ñu wan leen yàlla wan leen seen bopp kenn du wax yàlla sëñ bi rek kenn du wax yàlla sëñ bi rek sëñ bi rek sëñ bi rek bàyyi nañ yàlla isa mata damir ibadallah su conscience amatul kenn faareetul ne yàlla mu ngi ak yow doomu aadama yëgatul ne fu mu nekk maa ngi ak yàlla Om- Omar ibn Abdul Aziz dañ ko fal ñu jiitu jullit yi réunion jot ñu indi làmp bi ñuy réunion bee pétrole la ñu def ci pétrole daal di taal réunion ba daal di jeex soxnaam indi reer mu ne ko fayal làmp bi mu ne ko ah kon du ñu gis lu ñu lekk mu ne ko pétrole bi pétrole lu julli di la reer bi sama reer la su fekkee damaa bëgg sama reer bi lu ko nit pour ma lekk man maa jënd sama pétrole bopp fayal làmp bi nga delloo ko fee ba réunion julli di jotaat du taalaat allahu akbar moo tax keroog ba ñu bàyyee lislaam lañ torox keroog ba ñuy seet ay yëre ay costume ay karawaat ay dàll ay oto yu ñuul ay ay diplôme keroog la ñu ànku keroog la ñu torox parce que leen yenn saa yi ñu ne waa ji demal nga indi sa bonne vie immerse mu daal dem police ñu indil ko bonne vie immerse ñu daal di xool ñu ne waa kii de musta def benn crime ci réew mi ñu dénk ko milliards yi mu lekk ko kon ana bonne vie immerse bu baaxoo ibadallah isa mata addamir su fekkee nit conscience am dee na ay waxam dootul baax ay jëfam dootul baax ay xalaatam dootul baax parce que amatul damir amatul ngor amatul diine amatul jom isa mata damir su fekkente ne nit ki amatul ngor da ngay gis muy jaay boppam ñaata jigéen ñoo fi nekk tey di jaay seen bopp ëmb am doom joo xam ne amul baay loolu doo xam ngeen ne loolu nekkatul ngàcce Sénégal da ngay gis ku ëmbal nit jàpp ci loxo bi ñoom ñaar ñuy doxantu ngénte yi gën a ëmbal force sax ngénte ñi ñu ëmbal la isa mata damir góor nekk góor jigéen jël góor sëgg ci kawam di seeg moom lu ko waral isa mata damir ngor moo fi jeex conscience moo amatul diine moo amatul jom moo amatul ixwatal iman indama yu baaw damir saa yi nit jaayee ngoram sa tajidu man yutika shahada taalimiya duuna an tatrus yowman waahid su ngor demee da ngay gis waa ji am diplôme te jàngul fenn fu mu ko jële day am passeport diplomate te du diplomate du bokkul ci diplomate mat yi mu am diplôme santé soo xoolee fi waa santé jaar yëpp jaaru ko du ko waral parce que ngor moo amatut tey dem jël bi ñëw toog isa maata damir sa tajidu shahada tuba nga fekk diplôme yi ñu leen di jaay allahu akbar nga fekk ku nekk ñu koy signé nu leen neexee looy indi ñu signé ko pourquoi parce que ngor moo fi jeex indama yu baaw damir saa yu jaayee ngor aw ya xiibu an nufus wala bakkan yu set yi daal di dem looy fekk tuhmalu alwaajibaat devoir yi li ñu waroon def kenn du ko def lu ñu warul def la ñuy def dañuy bàyyi tabax hôpital bàyyi tabax école dem tabax stade ak lamb parce que ngor moo fi jeex isa mata damir ibadallah saa yoo gisee ki ñu waroon dëj ci kaso ki ñu waroon dóor am liberté di lambar lambari ci mbedd bi ñi nga xam ne defuñu dara nekk ci kaso yi lu ko waral mata damir ngor moo fi jeex su boobaa nag tatahawalul insaan doomu aadama dafay soppeeku nekk njaay àll nekk rabu àll ni rabu àll di di nëbbatoo ci garab gaynde ni muy nëbbatoo ci garab di xaar benn rabu àll romb ko ba mu fàdd ko noonu la àdduna bi di mujjee nekk tey noonu la ñu mel ku nekk da ngay fàdd ku nekk da ngay def lu neex xiinamaa yamutu tamim taxaful uqool saa yu ngor jeexee conscience amatul xol yi dañuy muur mbañante daal di tasaaroo doomu aadama nekk leneen nekk rabu àll moo waroon tabax day màpp moo waroon yëkkati day daaneel moo waroon xam day réer moo waroon dundal day rey parce que lan parce que ngor moo amatul diine moo amatul xoolal suñu julli yi xoolal dem jumaa yi ni ñuy feesee xool leen jumaa yi ni ñuy feesee xool leen jàkka yi xool leen alquran façon tajwid bu nekk ñoo ngi tajwid mais fan la feeñ ci comportement yi jëflante nag benn julli rek suba balaa ngoon léegi nga yaakaar ne waaw yéen seen waa ji moo doon ñëw ci jàkka ji benn waay dafay tukki mu ñëw ci imaam bi mu ne ko imaam mu ne ah mu ne damay tukki mu ne waaw yal na yàlla defal la jàmm nga dem ñëwaat mu ne ko waaye dama yoroon xaalis ma bëgg la koo dénk ma xool quartier bi yëpp gisuma ko ma ko dénk yow daal yaa ma doy mu ne ko bismillah indi ñaata la mu wax mu dénk ko imaam mu dem trois mois mu ñëw dem këram ñibbisi ñëw julli ci jàkka ñu julli ba pare mu nuyu imaam imaam ne ko sant bi ah imaam xamoo ma mu ne ko ah yow te de laa mos a gis mu ne imaam xamoo ma mu ne ko ah lan la mu ne ko yow bu barki dem fii keroog balaa may tukki ñëwoon naa fi xaalis man fii seede danga maa joxoon xaalis ana seede wala bu ma fon ko allahu akbar mu dem ci buur ba mu ne man de dama doon tukki aw moon ku ma dénk sama alal ba dem suñu imaamu jàkk ma dénk ñëw gis naa ñëw naa ci moom nee na xamatuma bi ma gisee lu ma njëkk a def bu ma nuyoo mu ne ma sant bi boobu laa xamoon ne pare na buur bi mu ne dem leen ngeen jëli imaam ñu woo ko mu ñëw ñu ne ko imaam xam nga kii mu ne ko kii mosuma ko gis ñu def maa yàq buur bi ne ko imaam kii nee na dénk na la alal mu ne kii tey laa ko mos a gis buur bul sonn imaam mu ne am na seede naa indi seede bi buur bi ne waa ji ne ko amoon na seede ndax yàlla moo fa nekkoon man ak yow waaw kon mu ne woon yàlla ñu laaj te yàlla nga ko dénkoon nañu woo yàlla buur bi mu ne amul problème yow ki dénkaane woon sa alal ban jàkka la ak bi bala la nekk dafa sori mu ne àndal ak kii nga woon ko jàkka ji boo benn garde mu ne àndal ak kii mu war la jàkka ji fu mu nekk ñu dem deux heures de temps yàgg trop waa ji fàtte na fu mu toog moom imaam bi fàtte na buur bi jékki-jékki rek ne ko yow sa gars yi yàgg nañ ne mu ne jàkka ji daal sori mu ne fayal fayal waaye xam maa daama xam nga ne jàkka ji daal sori kon xam nga ne dëgg la fayal daa mu ngoog isa mata damir conscience yi dee aqulu ma tasmaun wa astagfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu din ولو كره الكافرون عباد الله عندما يموت الجميع ساي كونسيانس اماتولي غور اماتول يقال دع ما لله لله وما للقيصر للقيصر يالا دا داف ام لوم موم جوخ كو دافا ام لو غور بي موم جوخال غور بي لم موم واو saa yoo gisee ñuy séddale aduna naan yàllaa moom lii ñun ñoo moom lii xamal ne ngor amatul foofu diine amatul foofu jom amatul foofu conscience amatul foofu foofu jarul nga fay daal nga fay toog tey loolu moo xew ci suñu réew mi innama yamutu tamit tataxalla anil masuliya tijaha zalama summa tad'u fa naqulu alayka bihim fa innahum la yajizuna saa ñu amatulay conscience da ngay gis borom responsabilité bi moom la ñuy jël xiirtal ci nit ñi naan ko dooral kenn mënul ma dara dégg naa fi benn waay ku naan président nag dafa war a rey dafa war a rey waaw dafa war a rey président dafa war a rey laa ilaha illallah ah président dafa war a rey ndax ñi muy rey moo leen moom ñi mu war a rey moo leen moom ba mu leen di rey kenn dong mooy reyete du am bakkaar mooy yàlla ndax mooy borom jaam ñi moom moom lu ko neex mu def keneen ku rey keneen ëllëg dinañ la taxawal ci kanamu yàlla ñu ne la kii nga reyoon lu tax nga rey kooku xanaa jàngul loolu lu ko waral mooy conscience moo fi nekkatu indama ya muutu damir yu manu xaain saa yu ngor amatulee conscience amatul dañuy jël ki gën a alku ci nit ñi ki fi daq waraate ñu jiital ko ki nga xam ne leer na nit ñi kii traître la ñu jox ko fonction wa yaxuunul amin ñu fekk ku wóor ku jub ku baax ñu sànni ko ca mbalit ma wa yusaddiqul kaasib ñu fekk fenkat ki gën a man fa la war a fen ci nit ñi ñu jox ko presse bi jox ko télé jox ko rajo ubbil ko journal ne ko bismillah muy xëy titre bu mu bind ci journal bi ay fen la indama yamutu damir wa yakzibu sadiq dañuy fekk kuy wax dëgg ñu sànni ko fale ne caabi leen gémmiñam kii day taal fitna kii day taal réew mi te waa ji dëgg lay wax kii wax ay fen nag moom lañ jox télé bi def ko ministre lan nangam indama yamutu damir saa yu conscience deewee luy xew di ngay gis kenn kenn xeet bi benn benn xeet bi allahu akbar ku nekk nekk ci lu la neex noo dunde rek ngay faale waaye luy nëkk luy jàmm luy baaxal sa yoon dootu ci nekk yow loo dunde rek waaw moyen boo def ba am alal rek baax na lu tax parce que damir moo fi amatul indama muutu damir bu ngor deewee ndeysaan da ngay gis jikko ju ñaaw rek moo nekk ci biti jikko ju ñaaw kenn ci ñun dootul baaxal soo buggee baaxal sax ñu ne la non bul sonn da ngay wax ba sonn ñi mënoon leen dara bu yeboo nga dem tëdd nelaw indamaa yow mu tëdd amee ngay dugg ci kër fekk jabar bu war jëkkër nekk ak beneen góor góor gi bu génnee moom it nekk feneen doom yi bu ñu génnee nekk ci leneen indamaa yow mu tëdd amee tàggu sa borom kër ngénte dem seeti sa far indamaa yow mu tëdd amee tàggu sa soxna séminaire dem tëdd ci hôtel yi ak yeneen xale yi jigéen indamaa yow mu tëdd amee foofu lañ toll tey ci réew mi di Sénégal di woote wu quatre-vingt-quinze pour cent musulman indamaa yow mu tëdd amee ayyuhal ahbab looy gis gis bi wax taayir nasiha xëy xurriya namima tahri tahzib da ngay fekk jëw amul benn problème koo wéetal jëw keneen wax ko ci lu la neex tam ko dëmm su ñëwee toog nga rayal ko xar fekk léegi-léegi nga doon lekk yàppam indama yow mutu damir liberté loolu la ñuy woote ku nekk def lu la neex soo waxee ñu ne loo am na temps moom am na temps liberté la ku nekk am nga sa liberté boobu loo neex nga wax gis ngeen xale barki démb bi la biñ noonu dañ koo violé li mu sol am na ku ci doon wax daan ne araam na benn waaye ne ko bu ñu dimbali ñu li mu sol sax moom moo tax ñu violé ko parce que li mu sol dafa araam kenn dimbali ko lu ko neex mu sol mesure na loo neex nga def indama yow mu tuddam yi kenn dootu wax lii la yàlla bëgg lii la yonent bëgg lii la diina bëgg lii la ngor bëgg lii la jom bëgg déedéet dafa lu la neex waaw mesure nga vacciné wu nga dafa lu la neex indamaa yamutu damir ñu nax suñu bopp doomu aadama bu amul xel su amul conscience moo rabu àll ñooyam benn wax waykat da doon nax doomam di ko yar bëgg mu am conscience mu ne ko ibnayya ibnayya yow sama doom inna minal unaas la bahima maa ngi lay yëgal ne am na ci nit ci doomu aadama yi ay nit ñoo xam ne ñoo rabu àll ñooyam inna minal bahima am na ci doomu aadama yi ñoo xam ne ñoo rabu àll ñooyam lu tax mu ne ko doomu aadama yi dañoo muus fattinum bi kulli musibatin fi diini waaye wa isa bi maalihi fattinum bi kulli musiba fi maalihi wa isa usiba bi diinihi lam yashuri mu nekk si nga seen alal dañ koy protéger wala leen gir yi gir yi ci buntu kër yi gis ngeen nuñ ko sécuriser gis ngeen xaj yi gis ngeen gis ngeen kër yi nuñ ko sécuriser ku nekk sa alal ni nga ko protéger waaye bu ñuy rendi sa diine mu ne doo ko yëg diine ñi moom bu ñu ci def ay bidaa li ci dugal lu ci bokkul kenn du wax ñëpp sa fal dañuy dem wuy ji bu ñuy bokkaale yàlla ñëpp dañuy noppi ñëpp dañuy d'accord ñu toogee di xas Seydina Muhammad da ngeen waa ji barki démb mu ngi jéggalu Sénégal dañ laan a saagal yàlla nga saaga ba pare bu coow lu jógee ñu ne jéggalul nga ne ah maa ngi jéggalu ñu ne waa jéggalu na saagal yonent bi nga saaga wala waa ji taxaw ne man yonent bi gënuma waaw gënu man nay gënu ma bàyyi dégg ngeen génnewaat na vidéo mu ne maa ngi baalu de waaw man gëmuma yonent bi gëmuma ko ci réewum Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman Sénégal dong laa gis ñuy wax yonent bi kenn du wax dara te bu ñu fi waxoon benn sëriñ eh bu ñu fi waxoon benn tarixa balaa ngoon dëkk bi tàkk direct tuur mais bu ñu waxee yonent yàlla Muhammad suñu waxee yàlla suñu waxee lislaam laa ilaha illallah doo gis kenn li El Hadj Umar doon wax ku dee am nga ku la jooy ba mu des lislaam lislaam moom amul ku ko jooy Sénégal ibadallah yéen samay mbokk ci yàlla xelu jot na delluwaat ci yàlla doy na jot na ñu o- ñu amaat conscience islamique jot jot na ñu dellu ci suñu borom ñu xam ne saa yu damir dee su ngor amatulee jom amatul diine mënu faa nekk jikko mënu faa nekk allahumma ighfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tu'azzibna ba'da al mawt bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين mbokk yi bu ñu jullee ba pare am na miskin yi fi nekk ci suñu biir soxla ñu leen dimbali am ñoo xam ne ñu ngi ci lal hôpital yi tëdd waaye yónnee ci jumaa ji pour mbokk yi jullit leen dimbali leen ku leen dimbali yàlla yàlla dimbali la ku taxaw seen mbir yàlla yàlla taxaw ci sa mbir qumu ila salatikum yarhamukum